président noo def. <laughs> encore yow quoi. Ah. Eh, moom bëggoon naa la seet ndog pour ndogu bi mais démb dañoo yéex a ndogu 22h lañ ndogu. loolu tamit du dëgg man depuis man mhm. <laughs> ah. xaw a métti. waaw macha allah. Euh, tey dama jot question bu important. Euh, muy bourse de sécurité familiale yi ndax ñu si bëri tey dañoo yaakaar ne soo ñëwee da nga koy dindi wala en tout cas ñi ko am ñi koy bénéficié wu ñoom dañ ciy inquiété wu lool lool. yow lan nga leen di wax soo toogee soo nekkee président lan ngay jëflante ak ñoom ñi nga xam ne dañ doon jot ci bourse de sécurité familiale yi. waaw bourse de sécurité familiale bi de c'est c'est une bonne idée déjà lu baax la man dafa euh, loo xamante ne dama ko vivre personnellement en témoin quoi wóor ma ne am na ñoo xamante ne seen bés bu ñëwee am na luñ ci fajee seen soxla donte nag da ngay xam ne vingt cinq mille passé na trente cinq mille léegi sax lu ñu lay jox ñetti weer yu ne euh, doyul pour defar doomu aadama boo xamante ne dafa njaboote war leen faj war leen jox ñu dund war leen a jox ñuy lekk Euh, ak aji naan war leen euh, yóbbu école di leen fayal ak leen ak leen war leen solal moo tax montant bi nu mu toll rek xanaa war nañ ko sax war na xeeb nañu ko te am na ailleurs fu mu am fi genre li ñuy waxee woowee noonu filets sociaux yi maanaam ñi nga xamante ne jàpp nañ ne dañoo ndool lool ba boo leen dimbaluwul ak bourse yu toll noonu bu mën nañ toog ñetti weer yoo xamante ne du ñu dajale ci seen loxo lu mat euh, juróom-ñaari junni kon ay nit lañ ñoo xamante ne war nañoo ànd ak ñoom yërmande euh, ànd ak ñoom jàppalante euh, moo tax bourse yi lu ñuy rafetlu la bu amee loo xamante ne nag ci bourse yi war nañ koo xoolaat ñaar la li ci njëkk mooy ñu ngi koy jox ñu ñu ne ñoom lañ koy jox mooy ñu ndool lool te dañu gis ne tamit ñu ngi koy jox ñu ngi ñu ngi gën a bari loolu dafay wone ne ñi ndool ñu ngi gën a bari kon objectif bu njëkk bi mooy naka la def ba wàññi ndóol ba ñiy soxla sax ñu leen jàppale xees xeetu jàppale googu loolu mën a deltu gannaaw te am na ci ñoo xamante ne nekk ay béykat ñi ma xam boo boolee woon defaral leen coopérative gasal leen forage ñoo génnee ci seen tool yi lu mat million parce que bu nawet jeexee li jële mois de octobre ba mois de juillet daanaka liggéeyatu liggéeyatuñu liggéeyu liggéeyu liggéeyu village lu dul ne dañoo dem bitim réew euh, bitim euh, dakaar euh, teeru ga je crois que loolu benn solution la pour wàññi ndóol bi beneen bi mooy bourse ni ñu ko géré comme niñ ko xamee ci régime bi fi jóge rek scandale yi foog naa ne moom jaartali bare nañ fi am na ñoo xamante ne nit ñi xam nañu ko ñi intéressé aux bourses yëpp xam nañu ne am na ñi ciy ñi ciy jot te bokk ñu ci ñu ñu jàppee ay ndóol yu war a jot ci bourse yoon parce que juste dañoo jege ay nit ñu nekk ci nguur gi ñu ne leen bàyyil ma bind la ci bourse de sécurité familiale loolu day andi ki koy yellool dëgg du ci jot parce que jox nañ ko koo xamante ne waru ci woon jot loolu nag gouvernement bu sérieux buy ñëw war ngaa mën a nangu yow boo egsee bourse de sécurité familiale yi di nga ko càmbar ba ñi nga xamante ne raax nañu ci te waruñu cee bokk te doyloowuñu bëgg a bàyyil war a ba war a bàyyil bourse yi ñi ko yelool ñooñu nag dañ leen ciy génne jox ko ñoo xamante ne ñoom ñoo ko yelool après dem defe ji yeneen programme yoo xamante ne nit ñi ñuy dimbale nee leen da ngeen lool lool ñooñu bu ñu sañoon am ni ñëpp mais dañ leen di jàppale nag ci loo xamante ne daf leen di jox koom ba dootuñu soxla ku leen téye ci ay bourse sécurité familiale yoo xam ne ni ma ko waxee ci njëlbeen mënul faj aaju yëpp yi nga xamante ne borom kër am na ko surtout ku njaboote Euh, am soxla boppam njabootam nekk euh, ñoo xamante tamit moom moo leen moo leen amel lekk amal leen naan amel leen colu amel leen paj amal leen njàng loolu mooy suñu xalaat ci bourse de sécurité familiale ku la wax ne Diomaye yi bu ñëwee day dindi bourse de sécurité familiale yi bu dee de ñi koy ñi ñi doon wax ne Diomaye terroriste ñoo doon wax loolu moom xanaa nit ñu war ñu leen gëm parce que yàgg na ñoo sosal waaye li ñuy sosal yëpp euh, saa yu ñu xëyee sos ko rek balaa 9 heures balaa 10 heures ñépp xam ne que li ñu sosaate nii amul bu dee loolu lañ dese nag pour euh, wax sénégalais yi voté lañu moom nga xam ne seen pexe jaax na jeex na te jaax nañu lool loolu lool. jërëjëf jërëjëf président waaye ñu ngi fi. jërëjëf jaajëf xam naa seen xel ñi am bourse sociale yi seen xel war na dal jamono ji jërëjëf.